dalen leen ak jàmm mbokk internet yi Savo di setan bus MTV cyant cant ak ngërëm ñenn len ci top bi ngeen di top sen bi di len jaajeufal bu baax baax comme ni ñu koy waxee bu fekke gan nga ci sen bi bu faté abonné bus close de notification bi mu nek mbir yu doy war jamono bi nak ñu ci bare bari taw nañu dal di dem makka ku ci melni ni Amadou Ba Mamadou Massali Farba Ngom ak Cheikh Omar an ñom ñi ñëpp nak ñonga makka waaye nag euh, du leen tax rëcci moom mii di Lat Diop nag information yi nu jot mooy que ne nag moom mii dafa bëggoon a génn réew mi waaye nag dañ kaa mujjee te ne ko doo mën a génn mu nekk mbir yu doy waar Lat Diop nag si xibaar yi nu jot mooy que nag moom it nee na daal màkk la bëggoon a dem daal di umra ji waaye daal dañ kaa te ne ko doo mën a génn jamono bii nag ñu si bëree bari comme ni ñu ko waxee ñu ngi daw daal di génn réewum Sénégal di muboo nag aji màkk ji Eh, dem umrah waye ñu si bare bari daal li ñu bëgg lek moy daw genn réewum sénégal moy la ad ya daru ñu xoosu de da bay umrah ji bari tapalé sa umrah ji de bay mo nga defé ko xombal am ci kat lu yalla dëkk bi do ko yeen de yaag ñi mel yow ñoom ñëpp nak ñoom antu wan ñak ñoom ak ñoom ñëpp ci am la la wax ni aw kenn du fi genn dëkk bi bëtt sa gënaaw da leer ba paré loolu tax cheikh mahamadou basir jumaay fay ala a ah, ca dalga barki dem bi wax lan ñi yor alol rew mi maanaam waxee na ci tom bu xaw a ànd ak dal boo xam ne ku koy dégg da nga xam ne kii bi guddi tiital kenn waaye ku xam-xam bi da nga xam ne wax joojo noonu du wax ju woyof de billaahi lancima amul ku ñuy seetaan ngoor goor ci àll réew mi te doo yi nga xam ne moo fi nekkoon nag maanaam réew mi désordre ba fi amoon wallaahi lancima amul lenn lu ñuy continuer lu dul ne danañ ko lijjanti ba ko ci ni ko rek waaw loolu moom nag seen seen xel la loolu tax nafa ba mu fi nekkee waaw tabarkal di noomee loolu loolu dugg ca waaw man loolu amul moo nit la ndax damaa xam ne lu mu fi def alaa kulli xaal kii ko fi wóotu lépp lu mu gis du lu war a jàll am na fulla ak fayda ju toll ni moom dana ko réglementé waat daj ko sànni ci àll ba waaw loolu la yàlla dogal ndax ñoom loolu mooy seen seen seen seen seen mbir bu ñoo ay ay mu fàttisiwun lañ ah kuy taftis ci mbir mooy inspecteur bi mooy ku am doole ak ràññee ni lii bokk ci mu mën ko ci génn ah kooku mooy inspecteur bi ah koo xam ne dafay dafay amu ràññi ci mbir yi ba xam li ci bokkut mu mën ko ci génn xam li ci bokk ma boole ko ci ah ñoom foofu loolu moo doonoon seen kii di seenu xarañ tàggee ah, loolu sëñ bi buñ liggéey ci ah, biir ba ni fa déex ah, xool mbir yi ni mu tëddewoon ci nekk ci ay tappale kii mënoon ngeen de jàpp ne nañ ko bàyyi mu jàll ah déedéet loolu lañ seen xel daal loolu dafa ànd waan ñàkk jom ak nopp yi xam na fii nii fa mu nekk moom tawarkalla ndeysaanoona lool waaw ndeysaanoona lool waaw ah, rawatina góor su Mame Mbaye Niang waaw ah, ñoom Ismaïla Madior Fall wallaahi la sim ndeysaanu lañ barki dem gis naa ku bokk ci njabootu ndafa naan ndafa nag ñu sarxe man ko li wax sax xamu ko waaw ah, bala xam ni maanaam sarxe gii te mooy ku nekkoon ci tàppale ku ci nekkoon nag na sa xel daal moom waaye ku nekkoon ci tappale da nga xam ne dañ laa saraxe ndax xam naa sama gars yi moom duñ la bàyyi mukk ci sa tappale yooyu noonu mu jaar fa nax say ah loolu bu boobaa kon ñun loolu leen di fale leen di fale bu waaw fan yi dégg naa ñu naan dafa pare ñu naan noome na ko yóbbu la mun ta wax ah man de mosuma ci amul tiit ku jaaxle nee naa nafa loom doon def jàpp na ni ci ay droit ci la nekkoon waaye de kilifa gi moom bis bu dikkee waaw lépp loo xam ne ni jàpp na ne du yoon am na fullaak fayda ak jura ah, bu mu ko mën a dajee sànni ci àll ba waaw ah, tamit Cheikh Mouhamadul Bachir Diomaye Faye waaw ah, li ma wérte wóor de mooy lu war a def dana ko def xam-xam bi mi ngi fi fit bi mi ngi fi njàmbaarte gi mi ngi fi ànd ko doomu doom si Ousmane ak kon sëñ bi nga xam ne nii moom moom lañ moom lañ ràngaloon ngënee li cour suprême moo war koo jiite yooyu noonu waaw dégg naa ñu ni Cheikh Mouhamadul Bachir Diomaye Faye décret bi nga xam ne moom la sëñ boobu ci pare bi jëfandikoo woon te mooy ndafa waaw niilal la ko neenal na ko daal neenal na ko nga xam ne nomination yi fi jot ne def ak waaw yi ci jaarul yëpp fii nii nii waaw fegal la ko laxas ko sànni ko ci poubelle ba doo lu ma bett nag loolu tax daanaka bi ci gars yi sànq temps du ma du ma jaral sànq temps ala euh, sëñ boobu ñu naan xaw ma nan nan nan ki yor lonaas euh, loolu kooku kooku yor lonaas xaw ma nan géey xaw nan nangam dégg naa ñun fii nii nii. ma nga woon ci aéroport ba fas yéene woon a jël ak fafal naawam dem dem génn bitim dem bitim réew naan damay omra ji moo bari tappale de waaye dañ laa ne nee nañ ko yow génn gi mënu ko nekk waaw lool de bettuma de waaw da leer réew mi da leen ko ci de waaw xel yi dama naa dal waaw ñu ñu amug ràññee lañ jox mbir yi waaw ñoo war a doxal nag incha allahu waaw kon képp koo xam ne da ngaa jàpp ne da ngay rocceeku waaw bu ko defee bu nga dem bitim réew ngir di yem faa làkkatu ji lu sotti de man kay nguur soosu maam Mbaye Diallo xamul ba xam jotu naa génn wala génn gut eh, ku xam ci ay mbiram dara maa jotu génn ci jamono bi fii sawaay nekkee waaw fii de nee li fi des na leen leer de waaw génn réew mi yombut du yomb de ci kàttanu yàlla waaw képp koo xam ne daal dénkoon nañ la dara ñu génnaat réew mi mbéte nga taxaw leeral ba ñu leer ne sa ginnaaw maanaam maanaam ku laal dara luubal nekku ci woon waaye képp koo xam ne dara luubal de tabarkal taxoon na ci waaw li doon saytu waaw daal leer si génn réew mi du yomb de waaw lu dul ne da ngaa si lépp loo xam ne ràndaloon nga ko waaw ci ci kopparu réew mi. na bëri woon na ay péripéties mais nag tout est bien qui finit bien wax dëgg yàlla fi mu mujjee am na solo euh, déroulement bi nag li ñuy rek mooy. réew kenn du ko fowe tamit lu mel ni élection aussi du lu ndaw du caaxaan danañ ci jël beneen leçon mooy tamit dëgg la am nañ problème mu démocrate Sénégal waaye nag suñuy institution am na problème dëgg la waaye nag doonul institution yi demul ba mëbax nag ba àgg ci suuf déedéet am na benn solidité boo xam ne am na ko par rapport ak yenn yenn ci yenn dëkk yi nga xam ni xëy na moom la ñu moom la ñuy tudd ci Afrique li tax ma wax loolu mooy Sénégal péripétie bii mu romb te demul daanaka woo te ba noppi élection am ci date biñ ko bi nga xam ne daanaka moom la war a mën nañu wax loolu ndax passation am na le loolu dëkk bu ndaw mënu ko bu fekkoon institution yi meluñu nañ maanaam amuñu génn solidité gi wax dëgg yàlla élection du am wala boobu bu amee du am ci anam gu rafet dana amee anam yoo xam ne mën naa ñaaw xëy na élection mën naa am ñii voté ñii voté wuñ bulletin yi mat fee matul fële loolu déggoo ko fenn parce que daanaka incident bu xam ne mën naa

élection bi ki ñu gagné ñi ñu gagné ñëpp nangu nañu dañ leen a gagné te résultat yi sax génnagul benn contestation demul conseil constitutionnel de ce point de vue dangay gis ni kon suñu institution yi xëy na àggagul fañ bëgg mu àgg fa mais nag am na ndëgër laa tuuti am ñi nga xam ne ñoo koy incarné ñooy problème bi kon li ñuy ñaan mooy yàlla mooy ñu ay hommes yoo xam ni yu lañ yoo xam ne ñoom itam bëgg nañ démocratie gëm nañ ko bokk nañ ci liñ mën a jàng mooy eh, ci ci ci ci eh, ci élection yi li mu doxale ba àgg si fii mooy gis nga pouvoir pouvoir rek moo koy arrêté c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir lu tax moo wax la mooy président Macky Sall bi mu demee ba jël décision boobu toll ni bi mu jël muy dàq élection yi te tegu ko ci benn yoon bu fekkoon tey jii dañu amuñu conseil conseil bu mat li mu doon am courage kon kenn waxatu kon élection du am kon ñu ngi naan élection déwén lay am te déwén sax duñu xam ba xam day am déet mais bi ñu wax dëgg yàlla ci taxawaayam ci mbir mi taxawaay bu ma sëkk la boo xam ne sax dëgër na dëgër goo xam ni bett nañu bëree bëri parce que jël na édition yoo xam ni ak courage ak ak ak maanaam ak wax ju dëgër goo xam ne wax na ko président wane ni ko yow def loo xam ne jaaduwul te waroo koo def te duñ la bàyyi nga def ko ci anam bu dëgër a dëgër kon loolu ngay yëg ni président ba muy bi xëy na bu fekkoon xalaat na ni dana demee du ko jël waaw kon président def na lu loo xam ne kenn mësu ko def waaye nag conseil tamit wax na ko wan na ko ni lii nga def kenn mësu koo def te it duma ko bàyyi mu jàll ak lu mën a xew yow sa mandat day jeex te da ngay organiser élection fa la force ba noppi nag génne édition yu tegaloo yoo xam ni xam-xam kese moo ci nekk courage boobu conseil constitutionnel wane courage boobu moom moom moo moo mën nañu moo sauvé Sénégal moo sauvé élection yi te loolu nag wax dëgg mënuñu koo ñàkk a souligner te yaakaar naa dëkk yu bëri ci àddina tey jii kontaan nañ ci rawatina ci Afrique ba yéem conseil bi ni mu mel décisions yi jàpp naa ni yi conseil yu jël dañ ko jàngale fu bari ci dëkki Afrique ak dëkki sax àjjana yi ndax damay wax ne man ñetti décisions yi conseil mujjee génne li ci nekk ci xam-xam kenn xamul nu mu toll xam-xam bu rëy rëy moo nekk ci ñetti décisions waaye ñeent yi conseil mujjee génne ci ci ci problème bii amoon fii ci mbirum élection yi kon jàpp naa ni bari na dëkk yoo xam ne fii Sénégal am nañ problème yu mag a mag a mag ci affaire élection togoo gële ñi ngay am problème président ba tey jii élection yi fan yii le 20 la waroon doon dàq na ko élection présidentielle am nañ am nañ seen cour am nañ seen cour constitutionnel waaye xëy na amul doole bi nga xam ne bu Sénégal am na ko ak taxawaay bi mu war a am président bi dàq na élection yi te mujjul fenn modifié na constitution bi soppi mode de bi te loolu Sénégal xel xalaatu ko fi ndax mënul am comme ni ko conseil waxee mu leer naan ci décision yi mujjee génn kon daal ca ba ñu guddal wax dëgg yàlla war nañoo gën a renforcer wa ci réew mi justice gën ko dooli doole gën a pouvoir ndax ñun Sénégal xam nañ nag séparation du pouvoir lu muy jar li ñu ko wan mooy suñu élection yi nga xam ne président naroon nañu ko xañ te bu dul woon conseil tey ji duñ ko am